gis wi mu ne lépp rafet na mu ne noonu rek lay mën a demee mu ne xamuñu dara lu dul diine mu ne xamuñu dara lu dul jikko ji baax mu ne kon doxin wi rafet rek lañ ci yóbbu nee na mi ciy sant bu baax a baax mu ne di gën a ñaan bu baax a baax mu ne tawféex rek mu ne suñ borom gas nañu ak tawféex mu ne ba lépp lépp lépp yéwente barkeel mu ne dara lu ko teye mën a am amul ci mu ne lu mën a nekk la ndax yàlla mooy def mooy dindi moo a xam suñu mu ne ndax moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu gën ci suñu bopp moo ñu gën ci suñu bopp mu ne noonu rek la demee jërë ngeen jëf mu ne ne mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax mu ne xolam seet na guy ci taxawaay bi ak doxin wi mu ne mi ngi ñaan bu baax a baax bisimilah na ñëpp tàll